yoonu lislaam jigéen yàgg na ci doon jàmbaar waaye ni muy doxee musul doxee nii ndax boo xoolee ba lislaam di taxaw mun naa ne jigéen ci njëkk ñàkk bakkanam muy suñu maam soxna Sumaya ak pouvoir bu mu mënoon am ci yoon wi tey mën naa ne soxna si position bi mu taxee soxna Sumaya taxewu ko taxewu ko yu soxna yonent bi soxna Xadija ku ne xam ne ni jàmbaar faq tëdd la woon alalam da jaayante ci yoonu yàlla yaa ngi dégg te pouvoir bi soxna si bëggoon taxawee nii nii nii tembe ñoom doxewu ñoon noonu ndax dañoo tënkoon am kilifa nga xool suñu maam soxna jaaritullahi ma bu Bousso xool njabootu Serigne Touba ak maam Cheikh ma Fall yi amul sax ki nga ciy dégg mu taxawee melokaan bi ay da jàll nag man xamuluma ko dara du dëgg waaye nag ñun li ñu sëñ bi sant loolu rek la ñuy wéy li sëñ bi wax nag man ànd naa ci ndaxte ñun ay taalibe lañ waaw li fi sëñ bi waxoon ni nañ ko fi def ci lislaam nañ ko fi def boo amee leneen lu ko fi tege it dagg sànni sa sët ba rek ku ne xam ne ni sëriñ Muntaxa waxam ji waxu sëriñ Tuubaa la kon soxna si lu ma koy wax mooy na fas yéene am taalibe fas yéene xam ne ni yoonu murit yoonu tënku la yoonu murit yoonu diine la yoonu murit yoonu taarix la yoonu murit yoonu bëgg yàlla la yoonu murit yoonu ndigal jëfee maanaam bàyyi ay tere la sëriñ Zal Galtapé moom la fi sëriñ Saaliwu teg moom la fi Cheikh Béthio teg moom la fi sëriñ Tuubaa sëriñ Muntaxa teg mu fii sëriñ Tuubaa kon moom na tënku wëlbatiku ak ña ànd ak moom di ko jay te xam ne la ñu nekkee du ñu ci am ngërëmal Serigne Touba ndax ku Serigne Mountakha gërëmul doo am ngërëmal Serigne Touba ndax moo fi Serigne Touba ndax Serigne Touba neewoon na sibti ka sibti rasulullah hay suma daa samay sët ñooy sëtu rasulullah ci kaw buñu tegee ci nag amul kenn ku ko mën a gàkkal te du mas a gàkk ndax borom ba mu koy ba mu koy xàll ak coono ba mu doon daj ak di liggéey yeneen sa sam dafa métti métti goo xam amul kenn ku sa fekk li simple laa doo xam ne ba mu ñaan suñu borom sa gabon wala sa lëmbalu wala faneen amul kenn ku naan ko amin kon na xam ne maam jëfe ndigal bàyyi tere te soxna si li ma koy conseillé mooy na am taalibe te xam ni maanaam yoonu ndono nu ko lislaam tegee ak charte bi ko lislaam tegee dañ koy nangu jigéen bu borom këram génnee àdduna amul ci moom lu dul sumb sumbul un huitième la am ci moom moom soxnaam la woon un huitième ci miraas la am ci moom ndono nag yaa ngi dégg maanaam ka ko sañ muy maanaam doomu geño mooy mooy doon te comme que Serigne Saliou Gueule mooy taawu Cheikh Béthio ñun lu ñu taarix jàngal mooy Cheikh Béthio jóge na fi Serigne Saliou Gueule Tapée la ñu teg ne mooy fii Serigne Béthio moom soxna Aïda Diallo na wëlbatiku topp ci ginnaaw Serigne Saliou Gueule Tapée te xam ni nit loo am ci këram maanaam donte bàyyi bàyyi bàyyi bàyyi bàyyi ci maanaam ci sa borom kër nga amee te moom mii xalifaam tey taxaw ñoom ñëpp nañ tënku xam ne mooy tey seen borom kër mooy seen baay moo fii Cheikh Béthio ñu mën a ànd liggéeyal Serigne Touba bu dul loolu lépp lu mu naal jëmee ko ci ber yoonu boppam jàpp na ni mu ngi liggéeyal Serigne Touba waaye mu ngi seytaane nga koy jay te fa mu mujjee mooy fii fan la. te suñu dafa wax ne euh, laa tafaal shay'an bi ghayri iznin fal izni shartun bi xubul sani buy def dara te amoo ci ndax ndigal li nga am bi bi ngay bi ngay jëf mooy tax ñu nangul la sa jëf. kon niñ koy conseil moom ndaw si muy soxna soxna Aida nit ñi nawoon nañ ko si jëf ji mu jëf si màggal yi fop alalam di samp ay waañ wante li tax ñu koy gën a nawaat. mooy mu jëfe ndigal si mu taxaay mu génn publiquement wax ne lii ma xam ne moom laa doon jël wala moom laa doon def wala doon beru bàyyi naa ko teg naa ko suuf dam naa dam naa sama doom mu Cheikh Saliou ma ma nekk si moom ànd ak moom ndax jëfe ndigal yooyu mooy tax mu am ndam si réew mi mooy tax du xat bu ko defu dañ ko fay xatal rek